ci lu gudd la parce que réseau bi ñu ngi ko teg depuis 2012 te mosuñu am financement bu sol kon nag jigéen ñi mosi dañoo yàgg liggéey yàgg développé activité yu bëri am solo am ay résultats yu am solo banque bi ñoo saytu lépp ba seen fen dal ñu soog ñu jox deux cent millions yoo xam ne nag jox nañ ko quarante six GIE ñeent fukki GIE ak euh, juróom benn waaye bu ñu GIE mais nekk dafa bëri nit donc vraiment ay daanaka ñetti junni nit sponsor rek suñu activité ñoom nag yëg nañu lu bëri bëri ba nga xam ne daal liggéey bi liggéey bi jaaree yoon xam naa banque bi dañu jox ay milliards. Euh, ñetti at ñetti at lañ koy dafa ko yow. moom ci confiance bi ngeen di waaye tamit nga xamante ne ñoom moom lañ leen laaj maanaam ñoom nga xam ne. ñoom daal ñun la dem gëm bëgg jigéen yi fonk jigéen yi gis jigéen ñaa ngi liggéey né wolu nañ leen wolu nañ leen nak sas bu reey la motax man sama jigéen ñepp nee naa leen banque bi dañoo sas banque bi dañoo sas bu reey kon la daal sas boobu dinañ ko téye ndax dañuy def formation ci biir man dama leen di coacher ndax maay seen leader dañu am équipe madame do mi ci la bok ñu une équipe bo xamné dañuy jappalé jigéen yi ndax man sama bok bank la doon liggéey nek na bank nek na caisse des dépôts loolu sama liggéey yeneen di consultation ba a xam bi